Keba Sall nit la go xamni kilifa la go xamni la doon ittee mooy yéete fekk nit ñi yeewu mu yété leen sëñ Abbas euh, nekkon na ko xamni euh, euh nitu ñepp la Sénégal sëñ Abbas euh, mom doon doon du bo xamni boo ni day di wax naan man sëriñ la mbaa ran danaan nit ñi dal looloo ko taxoon jóg yéen nit ñi parce que nit ki boo fekkee muy nelaw nit ki boo ko fekkee muy nelaw da nga koo war a yee ba mu yeewu nga door koy wax la nga koy wax loolu tax slogan Sëñ Abbas ak euh, philosophe am mooy yee nit ñi ak yeewu Sëñ Abbas nag tijaan la woon maam tijaan maam deretu tijaan moo doon dox dem na ba moom nee na ba mu nekkee xale la xolam bi doon bëgg-bëggul Cheikh Sidi Ahmed Tidiane far mu far jeex Sëñ Abbas Cheikh Sidi Ahmed Tidiane دمبني تفانيت فيها والشيخ حتى أنني بعد ما تفانيت فانين dama doon bëgg bëgglu cheikh di ba di jeex jeexlu ñoom dem ba amatuma cheikh rek moo am gisatuma dara loolu cheikh Sidi Ahmed Tidiane déggatuma sama noppi muul dégg dara yoon mu ni nag yow mii nag bootu da ma laaj ñi ma ana ki nga xam si mooy ngir gën ci mbindeef mu ni ñoom ñaar mu ni ñooñu duñ ñaar ki nit la mel ni ngi ngay di takk di takk di takk benn takk ndeer ñun la ana nit ki loolu moo waral moo buy takk Cheikh Ahmed Tidiane dafa mel ne yonent bi lay tagg ndax takk bi rek da yonent bi la Sëñ Abbas daal nit la koo xam ni dafay newoon di euh, am ak ñëpp jàmm di xaritu ñëpp nag tarixa yëpp di son xarit ànd ak ñëpp nag Euh, euh, ma maam gis ku baax fépp mu dégg ku baax sëñ Abba dem na seeti na jëm a xamante yow muy tarixa yëpp nag amu ci frontière amuñ ci frontière kooku mooy sëñ Abbas sëñ Abbas ak Tijaaniya loolu mbir la moo xam ne daanaka moo gën a fés jant bu fenk ci digg njolloor ndax danaka budé dañu wax ci ya, abbas ak ya serigne abbas ak sidi ahmed tijaani dana wax sax la sam bo waxo ba gele mom rere ndekete guddig lendam gi rek moko japp bi weer wi yëkkati ko mu génn ci ginnaaw xayma bi rek gis gëléem gaa ngi tëdd mu jàkkaarloog jant bi ne ko weer wi ne ko maza aqulu fa qawli fiika zu xasarin wa qad kafaytani altafsila waljumala in qultu la zilta marfuan fa anta kada aw qultu saanaka rabbi wa huwa qad faala waaye man it Abbas ci tijaaniya xaw ma fu commencé xaw ma waaye bii ci taarix dañu xam ne sëñ Abbas doomi tiijaan la mu ku nekk ab tiijaan ba pare jur ay doomi tijaan moom noonu la mel te loolu kat dafa am benn mbokk bu ko mos a laaj ni mel ci tariqa tijaan ndax ci moom la tàmbalee ak it ndax ci moom lay yem mu ne ko warisnaaha min al abaai qidman wa in mitna nu warrisuha al banina kon li ma wax ci waxam laa ko teg mu ne lii nii ñu mel ci sunuy baay lañ ko donne bu yàgg te buñ génnee àdduna it danañ ko bàyyee sunuy doom loolu dangay gis ne way juram Mame Mayoro Sall mi nga xam ne oustaz Ahmad Gaye wax na ci tënk lu yaatu ci moom werante amut ne muqaddam bu mag la woon ci biir tariqa Maulana Cheikh Sidi Ahmad Tidiane borom tasarruf la ndax wax nañu ne sëriñ Babacar si radiyallahu anhu ba mu ñëwee ci bàmmeel yi ci ngiig daf ne ah sëriñ ma yoro nag kéemaan la ndax bi ma duggee ba ci bàmmeel yi di ziyaare ña tëdd ñoom ñépp ku ne ci sa xabru laa la fekk waaye sëriñ ma yoro dafa jóg gàttanduma ci buntu armeel yi loolu sëñ Babacar karsi moom moo ko wax loolu ay shahadat yu kawe la yoro Sall kon dafa amoon kir ci tariqa maulana Cheikh Seydi Ahmed Tidiane rax ci doli soxna mam fati wad mu bax mi nga xamne moy mooy wu jigéen xam nañ ne ci tund kajoor ak njaambur jàpp gànjool ak la ko wér bokk na ca ñëfa njëkk a tasaare tariqa Cheikh Ahmed Tidiane bokk na ca fa ca ñëfa njëkk aj màkka bokkoon ci góor yàlla yi daan gis yonentu yàlla Muhammad yaqazatan bila manaabi jappé tariqa bi ci sanad bo xamné mu ngi bàyyikoo ci cheikh umarul al fouti jenn góor kep dox digantem ak cheikh umar ñukoy wax alfa ali ndongo mu dekk dekk bu ñu wax fanay ca ginnaw Richard Toll boy dem fouta batay qabrom ba nga fa njobotam ñu ngi fofu ñu len di ziyara di ku xam ñi bind ci cheikh umar dëppoo nañu ne Alpha yu Ndongo ca Fanay bokkoon na ci muqaddami Cheikh Omar yu mag yi kooku moo jox maam Ahmadou kon nga gis ne Maulana Cheikh Alxaaji Abbas Sall at-Tijaani li arab di wax mu immun muxwilun loolu moo ko dal ci yi ay baayam ci tariqa bi lañ bokk waaye ay nijaay itam ay nijaayam itam muy néeg ndeyam soow mi mu nàmp mooy soow tariqa tijaan